waaw ñoo ngi lay fay di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi sallam di képp ku ñuy seetaan xam nga gàncax moom ku ci bëgg a wax rek da ngay wax fi sa xam-xam toll xam nga gàncax ak nit la yàlla bind ci àdduna bi ñu wàcc fi oxygène bi nit di nooy ci gàncax yi lay jóge gaz carbonique bi nit ñuy dégager garab yi moom la ñuy nooyee te nit ku nekk réew ma nga dëkk feebar bu la fa mënta dal garab yi nekk ci réew moom ñoo lay faj bu dee xob bu dee xas mu dee reen bu dee ay car lépp dañ ciy faj lépp garab moom lépp mooy faj garab gi sax ci ndox nag bokkul ak li muy faj ak garab gi sax ci suuf bokkul lu muy fajit ak garab gi sax ci xeer waaw lu ci nekk rek am na yoon garab gu garab xob tamit xob yu tooy yi soo ko weeree ba mu wow ëpp na quatre fois njariñ kanam bu tooyee nag bëgg koo jariñoo garab daal macha allah alhamdulilah rabbil alamin lu am njariñ la te ku nekk war nga koy mën a jëfandikoo boo bëggee sa wér gi yaram sax waaw garab moom ci benn boo xam ne buñ ci yàlla dimbali ba dox ci am ci xam kon par exemple ñu wax la rek lu mel na laaj. xam nga laaj lu bari ay njariñ lañ mag ñi sax daan nañu wax ne laaj lu ko nit laaj rek dina la ko delloo lu bëri nag ay ay ferñeent la am na vitamine A am na vitamine B am na vitamine C am na sélénium am na poly <coughs> polysaccharide laaj bari na ay yoo xamante ni dafa nekk ci laaj même nii ñi nga xamante ni feebar bi nga xam ne léegi dafa bari bari bari bari bari bi nga xamante ni moo jaaxal àdduna bi jaaxal ñëpp fi ñu ni so soo jëlee juróomi kii bu laaj jël sellëre baxal ndox ba mu kii nga ci liitaru ndox nga jël takku sellëre baxal liitaru ndox def ci juróomi ki bu laaj maanaam boo añee ba pare nga di ko lekk bàyyi ba mu sedd boo añee ba pare nga naan soo ndekkee nga naan soo reeree nga naan ak sa suukar nu mu mun mel sa yaram rek da fay gis dafay wàcc dafay ba ni nga ko bëgge laaj moom bëri na njëriñ macha allah alhamdulilah rabbil alamin hmm? hmm. wax mais dañoo xam njariñam rek xamuñ xamuñ nit moom toujours li nga moom dalay jege xam na ñàkk a jege beeg yomb gim ñu yomb moo tax mais laaj néew na garab yoo xamante ni di nga koo jëfandikoo te laaj nekku ci lu am njariñ la lu mën a faj la lu mën a rey ay microbe la macha allah daal bëri na njariñ macha allah te it doomu aadama war nañ ko mën a jariñoo. Mhm. Euh, yoo xam c'est bari na mais dina ci may nit ñi ben ben ben garab amna garab bu ne wax dambal garab bi non la tuddu gis nga ñi am gomu robaale wala ñam am góomu ba ne dañuy dag sen tank dañ dem wut bu toy bi suñ ko dëbbee ba mu ba mu ba mu ba mu mokk ne ko jiw boo góom def day wër ci carton yalla ak lu góom garaaw garaaw lu mu garaaw garaaw nak soko ci defé dina wër ci carton yalla garab bi dambal la tudd. dambal waaw. no plissoir bëri na ci àll bi parce que garab la goo xam ne garab gu gu gu doy waar la sunu mag ñi sax daan nañ bëri ñu bëgg mbooloo bëgg bàyyi bayre daa garab la goo xam ne bu guddee day dégaase xeet gu xeeñ njugub yi nga xam guddi day dina bëri njugub yi di di di di ko sàmm maanaam garab la goo xam ne même boo demee ci jaaykatu garab yi sax dañ koy xam mais bëri na ci àll bi. waaw bëri na ci àll bi trop garab bu am doole loolu dinaa ko may doomaa de nga xam ne képp ku am góom te góom bi jaaxal la wutal xob bu tooy ba rek dëbb ba mu nooy rek nga di ko ci tey bala nga ko def quelques jours rek da ngay gis góom bi day commencé wér bu soobee yàlla waaw ah, damba la garab bi tudd waaw hmm. léegi ci wàllu garab yooyu noonu tey euh, yow hmm. ngay dimbali ñu ci faju euh, ndax produit la wala wala ay pot la wala yow yaa ko liggéey traité wala bu ñëwee waaw am na garab yoo xam ne dañ koy def siro ndox lay doon am na garab yoo xam ne ay xob lay ay xob la dañ koy togg man la plupart sax lu ci ëpp garab yi may defar man maa koy defara sama bopp dooseel ko sama bopp defar ko ba mu baax su dee bu ñëwee rek ma toppale traitement bi nga ñëw di jël si say traitement ba traitement yi ma mais garab moom dañ ciy faj bu baax su suma ñi nga xam ne gis nga hémorroïde lu mu garaw garaw voilà gis nga hémorroïde lu mu garaaw garaaw soo ñëwee kenn du ko opéré dinaa la ko fajal ndoxu siti lu mu yàq sa yaram yàq sa kaw ruus say kawar sa bopp ba amoo kawar damm say we yàq sa yaram may la tàngaay yaram wala xañ la am doom bëri na jigéen ñoo xamante ni ndoxu siti moo leen tee am doom ñaar dañoo am rab ak liggéey fekk tàngaayu ndoxu siti bi rek mooy tax lu seen borom kër je euh, joteeg ñoom rek loolu day yàqu am na góor ñoo xam ne ndoxu siti leen jàpp ba seen mànn yu dafay oyof lépp siti la siti moom dafa nekk feebar yoo xam ne nit ñi dañ koo xeeb te dafa bon mais lu ci nekk dañ la koy traiteel ba nga gis sa bopp te su la joxee suñu garab benn bala ngaa jël bala ngaa ñëw ñaari yoon di nga commencé gis njariñ bi bu dee estomac rhumatisme napp sedd xeetu feebar daal bëri na yoo xam ne suñ ko doon lim sax day kii mais yooyu yëpp suñu boroom def nañ gëstu nañ ko ba gëstu garab yi nga xamante ni incha allah rabbi da koy fekk. Mm-hmm. ak externe mm-hmm. Mm-hmm. waaw bu fekkee ne bi génn la mook mook bi bi nekk ci biir leen rek moo leen moo leen wuutale bi génn moom dina am ay sirop ay benn point bu ñu bu ñu lay jox boo xam ne di nga ko ci diw mais loolu rek moo leen pour mun a seeyal góom bi parce que bu fajoo ci biir te fajoo ci kaw day am problème parce que booy faj da ngay faj ci ci biir faj ci biti soo ko defee loolu mooy tax jàngoro ji du gaaw a ñëwaat waaw waaw ñaar yëpp la ñuy fajandoo même it góor ñi nga xamante ne nit dañoo ñàkk kàttan ci seen wàllu kër si kàttanu yàlla am nañ ay garab yoo xam ne ku ko jël di nga gis sa bopp gis sa bopp boo xamante ne dina bu dee feebaraal daal dina la faj bu dee ñàkk kàttan dina yokk sa kàttan bu dee ñi nga xamante ni seen sàkkare yi dafa tuuti dañ la jox garab gi soo ko dee naan say siddiit dina ubbeeku du waxuñu nag sa sàkkara dafay yokk mais say siddiit dina ubbeeku ba sa deret mun a daw sa biir sàkkara ba guux ba yow sax di yaakaar ne dafay yokk mais fekk baaxayu garab gi rek ak ni sa ni sa deret war a dawee sa sàkkara dawee rek mooy tax nga gis loolu waa waaw lu ñuy naan la mais suñ la ko joxee moom kaasu café li naa café moom nga